وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما ما جرى من جمعتي ويكبوا أكبرون kala tagg baayub saaliyu maami basmile ma jóg roy ci mam njàmme ti waykat bu mag ba woon kala tagg baayub saaliyu maami basmile su may tagg sëriñ saaliyu بقام قاي خربيت بركب سرين موسى كساب من جلاي دلي قنا بسم الله بركي شيخ بامبا خائدي إلى نته سيقي سيوق مؤملي خلالات مولوني dëklooti cant gi ma tagg fi sëriñ saaliw ndegam gaayu baaxile xarit baax du weesu baax bu seex bamba del si woon yonente bi teewaat fii du tax manaan ma jóg fi lele sëriñ saaliw ooy seex bamba tey jii ci xarnu bee te Cheikh Bamba mooy yónneen dëgg ko waajile xarit yàlla geneen tëbeeg Bamba benn lañ dañoo bokk luñ bañ bokk luñ bëgg waajile sëriñ saali wooy seen ndaw ci bii xarnu doy na ma may dellu gannaaw mu ko yàlla na ma dimbali sanu sang yaa ngi sanu sang yaa géwél way ko war na la saali way seex bamba te yii ci suuf si le koy seex bamba oo yu mustafa oo yu mustafa alay salaatullaahi moom ñooña ñale subu ak asaani ak abi del si waat dinañ tagg sëriñ saaliyu nde moo wuutu ñooñale yaa ngi nii may lim leen te déglu ma nga doon way démb moo del si tey jile jikkoom yaa ngi nii may lim ma ka Seex Bamba doon way démb moo si tey jile ba biir ci lay doore Illaahi moom ñooña ak ñaleen nabiyun ci laay doore sëriñ bee di Mustapha xalilun abibun misluhu deet ci gaayile najiyun xaribun yëggaleel way wi sooman ne sëriñ saali wookan nen bi lu ñuute yow mi le naqiyun saalihun wax ji sotti far wa wallahi kii mooy kooka seetlul ma yow mi le nabiyun adibun waayaa it ba waay wa mat ji koy sëriñ saaliw li nangul ma lii nabiyun bilaa عليم علم سقيم بلاد من تبيب برنا قايل نجيب عجيب ناسب وهو ناسك هو الآمر الناهي كلون ما يقل نقيب رقيب mustajibul musassabul masiihul malaasun wa mawaatin ku dendalle sëriñ Bamba ak bi ñooy lenn lenn far te Cheikh Saliou ak Cheikh Bamba dañ di jaawale melay Mustafaa al Muxtaaru sëriñ Saliou ko da ko roy ci bo le ko lañ ko donale nasibun nasibun suata ya muqaddamun ala nasi fi sal arsi moy leen ci wajile ku xam sal yu xam ne saay wax lu dëggu la daga leen ku dëggal yokku ya kadile jikoom ak jikoy yonnen bi lu ñu wute xawma ko kilay kooka moom dootu am kenn ci dun bile sangub sang yaa ngi gaay bi xarnu moo ci gën jógal bàkku yow doocu ne yaa man ci mbërile danga doon booleek roy ndamul am nga ndam yu roy wallahi yaay xaadim ñi xam ñëpp a wax li ña gis bamba gis ko wax ne seen leen nu wuutewul ci saayir si ak baatin bi mooy bamba waajile ragal gaag dëggal gaag nga ak xër ga yaa ko te yaa ngorom gaag fulla jaag mat ga le doxee na wuuteey woowaak waxe yaa ja ak yéenéem ja yi min ci yow mile defoo kuy gàddee kay gedde xebaate doo ko def te doo xas mindéef doo ŋàññi yaa maandu waajile nangul mbàkke yaay Seex Bàmba fulaan ja yaa ko yor danga donnu kii roy kii tabeem ngaa fi yow mile bu niir taw doon roy ci yow kenn du jooyati maraqi ci duniyaa ku yaa man ci tapile meew mi defoo kuy xiina ka yëngu doora taw say may mbégte lay àndal ci gaayile lewet laa ne ñoom do ci ko dood roye yaa dàqa muñ muñkat yi semal nga suuf sile amoo dara ci dor te njëriñ rekk yaa di kër kërug garab ak tuuba nga yaa gën ci kër yi le amuy dég sa meññeem ñor te neex ñëpp yam ci yow ku yendal bi sa kër du tu tàggoo ki xéewale حضرات اخضم لعنات اخضم بني نيت لا فكر جاو يا امام دفيله xarit yàlla ak yeneen tébeeg bamba benn lañ dañoo bokk luñ bañ bokk luñ bëgg waajile sëriñ saali wooy seen ndaw ci bii xarnu doy na ma may dellu gannaaw mu ko yal na ma dimbali sangu sang yaa ngi sangu sang yaa ngi sangu sang yaa ngi way ko war na la sëriñ saali wooy Seex Bamba tey ci suuf si le ki la yor ji koy Seex Bàmba oleeki Mustafa boleeki Mustafa alayhi salaatullaahi moom ñooñal ñale subu say ak asaani ak abi del si waan dinañ tagg Sëriñ Saaliw ndemoo wuutu ñooñale jikkoom yaa ngi nii may lim leen te déglu ma ga Seex Bàmba doon way démb del si tey jile jikkoom yaa ngi nii may lim leen te déglu ma ga Seex Bàmba doon way démb del si tey jile mbëggeel ci lay doore Seydina Mustafa alayhi salaatullahi moom ñooña ak ñalee nabiyun ci lay doore sëriñ bee di Mustafa xalilun abibun misluhu deet ci gaayile مجي غريب يقال الله يصوم سرين سالي وكنن بلونيوت يومي لي نقيم تقيم سالي وخدي ستفر والله كيما يكوك سيطل ما يومي لي نبي أديب آيا إبا ومت jikoy sëriñ saaliw lan fi doot li nangul mali nadiun bila qisim عليم علم سقيم بلاد من برنا قايل نجيب نجيب ناسب وهو ناسك هو الآمر الناهي كلون ما يقلي نقيب رقيب مستجيب مسسب مسيء ملاس وهو مواطن كدم رل سرين بامبا كنن بنيو